bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahabatihi alghurri almayamin wa ala khayri khadimihi dhi alhabli almatin wa ala man iqtafa atharahum ila yawm الدين bokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi nu sun borom subhaanahu wa taala julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bisu tedd yi toll rawatina bis bu tedd bi ci sunu kanam di bis yoo xam ne bis la yu màgg yu tedd yu nga neel muy al asrul awail min til muy fukki fan yi njëkk ci tabaski ak màggam tax na sunu borom ginj yàlla nag lépp lu muy giñ day tegtale day tegtale màggug loola day tegtale ngëneelul loola te giñ na ci fukki fan yii wal fajr wa layaalin ashr dafa giñ ci fajar giñ itam ci fukki guddi yi nga xam ne ñoo jëkk ci sil xijja kon giñ googu yi mu ci giñ dafa tegtal màggaayam ak tëdd nga am rawatina ne bisu suba bi mu juróom-ñeenti fan yi nga xam ne woor ko am na ngëneel lu màgg a màgg yonent bi sallallahu ku woor juróom-ñeenti fan ci dul xijja ci tabaski sunu borom dana ko faral bàkkaar at mi mu weesu ak bàkkaar at mi mu dëgmal loolu def naa ngëneel lu ko gën a màgg amut te ci fu boobu rek lañ ko wax ñu bàyyi lu xel foofu ne euh, day mel ni werante yu bari day am ci diggante woor yow mu arafata war yow arafa jubloon ci jëmbi jëmbi taxaw ga waaye jëmbi jamono ji la xam nga arafa tey ji lañ ko taxaw ca màkka la tax mooy tey mooy seen juróom-ñeent ñoom ñun na sun yoom ñeent suba la kon koor googu ñuy wax yowma arafa te kon juróom-ñeent fan yi la waaye du caage ne dafay dëppoog màkka ci buñ lowut ay bis ci ci weer wi kon bu ñu sanduwut rek mën naa bañ a daje kon juróom-ñeenti fan yi nga xam ne mooy koor gi e, dëhli loolu mooy suba ci gaawu bi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax su ko ñuy ndokkeel ñëpp ci bis yow ak ci bis bii ci kanam ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaqa sun bam bàyyil na ko fi mu yàgg fi lool te wér lool ba yim naalal Sëriñ Tuubaa fas ko ko yéene liggéey lépp sotti coleet ci kanamam mu jiite na ko lu yàgg te lépp naanu ko moom te lépp nag mu ci dolli ko ay ngërëmi Sëriñ Tuubaa ci jéego mu séq rek yàlla na ngërëma Sëriñ Tuubaa ci moom te xam nañ ne lu lu gërëm loo Sëriñ Tuubaa rek ci lay dox ñu ko ko ñaanal bu baax a baax bis bi ma dëgmal nag di bisu tabaski tabaski di benn xew-xew ci xewi xewi lislaam yooyu jaamu yàlla yi te li ko sababoon nag di ay ay mbir la ci njëkk may ngir nattu doon nattu ngëmuk sayidna ibrahim ak sayidna ismail fu seen fu ma nattu seen ngëm yàlla ak natt seenug mën a muñ ak natt seenug mën wommatu ci ndigal yàlla yi subhanahu wa taala la jaas itam mu nekk ngir jàngale ndax xalaatu bu rendi doom ak di leen sacrifier ngir jaamoo ko ay aliha muy lu ñu tudde yàlla ñoom dafa nekkoon aar ju tasaaroo lool caanam anam gu mag a mag a mag ci société yi jiitu woon rawatina ci bilaadul iraq wa sham diggante iraq ak sam foofu la gënoon tasaaroo maanaam baroon barin lu bàyyi daan jàpp ci loxo doomam yóbbu ko ci seen jaamukaay yi la ñuy tuddee yàlla ren di ko fa ci kanamu seen timsal yooyu ngir jaamoo ko ko wala ngir faj seen lenn di aajo rawatina rawatina su fekkee dañoo toll nag ci jamono joo xam ne dañoo am ay jafe-jafe réew mu bekkoor wala ay wéri di bari wala ay musiba di xew dañ naa neey yàlla ji daa mer lay njëkk a dem xel ca joo jamono mooy def ay sacrifice kenn ku nekk jël la gën a ëpp solo ci ci li moom la ca gën a tedd gën caa màgg ngir ne dañ ko yàlla joojee amul lu gën tedd ci doomu aadama rek doomam ji mu jur mu rendi ko ci mu ko ci rendi wala ci lakk wala tàbbal ci géej wala ci la boo xam ne dee sa ci faati bakkan notaan la itam ci xam gim xam ne rendig nit doomam bokk na ci li gën a diis ci bakkanu doom aadama te yàlla bindul bindeef yi ngir mbugal leen donte ñoom diisal na ci seen bopp it yàlla moom moo leen gën a yërëm seen bopp kon na nga yërëme sa bopp na la yàlla yërëme ko ëpp suñu doon nam ma yàq nag xeetu tadxiya boobu xeetu sacrifice boobu jël tànn ak ab xaritam wataxadallah ibrahima xalila mi seydina ibrahima alayhi salaam ngir mu nekk misaalum jëf mi nga xam ne ci moom lay jaarale mm, pexe mi muy yàqe aada jooju ci la ko digal mu rendi doomam seydina ismail bandee ba koy rendi du jan ñu ci xuus xam la eh, sun bam wuutal wattee ko am kuy mu mag a mag loolu na mel ni risaala la maanaam mel ni daal ab lettre wala message la boo xam ne dafa jëm ci mboolem waa suuf mel ni ko leen di wax ne yaa naasu yaa muslimin laa tadbahu abnaakum wa in kuntum laa maxaalata faailin fadbahu badal minhum kapson yéen nit ñi daal rikk waay bu leen rendi seen seen doom bu ngeen demee ba rendi mënta ñàkk nag kon na ngeen ko wottee ab gàtt rendi ko waaye nag bàyyi bañ ngir bañ mu doon lox day dem ba yàgg yàggu jamono tax ñu fàtte ko wala rappal ko tax mu takkee ko ak jaamu yàlla goo xam ne day takkoo ak moom benn shair mi shair mi shairil din te mooy jaamu yàlla ak xaj nga xam ci la ci loolu lañ jël nag misaal ci mbir moomu ci la nag aada jooju daal yàqu nag tamaaman muy aaday sacrifice doom jooju ñu doon def moo tax bi si na eh, Abdul Mutalib nare Nesere rendi doomam mooy maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee neser na ko te fas ko yéene wéyal waa Makka waa Xuraysi dañoo téye ci loxoom nga xam lam ko jote lam ko mujj jote mooy téeméeri gëléem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 أشهد أن محمد رسول kooku abdou li naroon mooy abdullahi mi nga xam mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu mooy li indi ayid ayidul adha muy bis bi ñuy dégmal ayid nag kon am na xikam yu tax ñu yoonal ko baatu ayid nag mi ngi jóge ci baatu fa awdatu maanaam loo xam dafay ñëw di ñëwaat di baamu ñu tudde ko loolu ngir delsi gi muy delsi at mu nekk di indi itam mu bees aku cant julli bi nag ñaari iid rek la am mooy iidul fitri ak iidul adha maanaam koor ak tabaski ñu yowanal nag iid googi ngir sant yàlla subhanahu wa taala ak wuuteeg yéefar yi ak musrikoon yi ci seeni ayit ñoom ngir xadis bi anas nettali ne xadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almadinata wa lahum yowmaani fa xaala ma haadani l yowmaan kunna nalabu fihima fi ljahiliyati fa xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allah xad abdalakum bihima xayri minhuma yowma al wa yowma alfitra nen bi yent bi ñëwee madina ngir gàddaay dafa fekkoon ñuy am ñaari bis yoo xam ne dañ ko dañ ca daan fo wala sax fekk nit ñi di di feet di feete ñaari bis mu leen bis yi lu mu doon ñaari bis la yooyu daal dañ ca daan fo ak di ci bég ci jamonoy ceddo ga sallallahu alayhi wasallam ne leen yàlla wotteel ne leen ko yeneen ñaari bis yu leen gën te mooy bisub kori ak bisu tabaski kon yooyu mooy ñaari waaye noonu nag sunu borom ci tawfeex ngëneel ngëneel la mu dollil nu ca beneen beneen bisum it ñun ñun murid yi bi bisu màggal Tuubaa sant yàlla moom eh, ñaari xid yi nag ay ba njëkk mooy bis la mu ñuy waaj def ay waaj taay sangu ca sol ca lu yees soo ko mënee dafa sa kawar yaram laal gët waajta waaj waajtaay wu jekk bako ko ñaareel mooy bu fekkente ne bisu tabaski la boo xëyee nga baña a mos dara da ngay jàpp ba julli julli gi ayit gi ba ren di sopp nañ liggéey ngay njëkk mos ci bis bi mu doon lu bàyyi ko ci tabaski bi loolu dañ ko sopp lu am solo la ba mooy jullee iid gi ci barab bañ koy jule jullee wuñ di ko jullee ci biir juma lu dul ngànt ko waral waaye bu dee fu mel ni Tuubaa nga xam ne am nañ barab buñ ko jagleel wala feneen fu mën a doon fa am na barab buñ ko jagleel wala ab bayal su boobaa moo ci gën waa dëkk bi mu joxee daje góor ñaak jigéen ñaak xale ya te jaxasoo bañ a am ci góor ñi jigéen ñi ñu gën a am seen barabu bopp ba ko ñeenteel mooy bay bay bañ caa waaj ci jigéen ñi maa jigéen moom bu ne waaj tey góor lañ ko digal waaye jigéen bu mu ca waaj bu ca lal gët waaye na sol nag col ma ko lislaam sant sutura moom bu baax a baax a baax a baax ba ko juróomeel mooy suy dox jëm jullikaay bu ma nee doxe tànkam ngir toroxlu moo gën su ci amul ngant su ci amee ngant nag mu war waaye dox ci lay gën a mën a toroxloo ak suy dellu mu jaar ci yoonu bokkut ak wam jaarum bi mu ñëw bokk na ci tamit takbir muy kàbbar yu ñu ci kàbbar di wax allahu akbar soo ñëwee jullikaayu aj bi nga di ko wax ba kër imaam di ñëw su imaam di xutba itam diggante bi muy wax ay allahu akbar yow da nga koy wax moom ko wax ci biir yow di ko wax ci ci yàllu su a nag gannaaw julli farata yëpp nga di nga def takbir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 dafay ci jul bi nag mu woor benn bis yooyu bisu kori woor ko dafa xaram bisu tabaski ak ñaar yi bis yi yeesas woor ko dafa xaram moo xam nag koorug neser la moo xam koorug coobarew la tudd yàlla googu ñu ci tudd nag eh, sun ba wax na ko ci alquran al ayaamul maalumaat dafa am ak ayaamul maalumaat ayaamul maalumaat mooy bisi loj yi bisu tabaski ak ñaar fan yi ci ayaamul maalumaat nag mi ngi tàmbale bi ñu julee ba ci suba la ca tàmbale ba ci ñetti fan ya wa yadkuru wa yadkuru smallahi fi ayaamul maalumaat waxaan ne wa yadkurullah fi ayaamul maaludaat su ko defee nag bu dee tabaski nag gàtt bi nga xam ne moom lañ ci rendi am na luñ ca taamu su dee xar jasan lañ ca taamu mooy xar moo xam ne lu mu gàtt-gàtt dana am at loolu bàyyi lu ca xel leen na am na ca xar yi raas yoo xam ne dañuy gaaw màgg lu mel ni raas bi ñuy tuddee laadum juróom benn weer képp su ko amee day daal tol tol tol na ko neex soo laajut nag mën ngaa topp réyaay bi nga jënd te fekk mbatum tabaski faaw day matum at kon du xool réyaay waaye da ngay laajaale ñaate weer la am amee fukki weer ak ñaar mat na su ko amagul nag matagu tabaski ak nu mën a toll bu dee béy nag dana mat at ba tàbbi bu baax caatum atum ñaareelam weer wala ñaari weer lum gàtt-gàtt bu dee xar nag kuuy ma lañ gën a taamu su jafee tàppaa nga baax na su jafee bu jigéen ba baax na moo ci waaye bu jigéenu xar moo gën siketub bay su fekkee xar nag ñetti yëpp jafe na la nga ba nga dem ci bay nag sikket ba gën su jàllee bu jigéen ba waaye bu dee nag ak gile moom daa mel ni suñ gox yi bariwut fuñ koy fuñ koy tabaskee bu dee safaan ba nag bu dee xet yu nag ñi nekk màkk la def moom safaan ba mooy ca gileem la tàmbalee jëm suuf giléem ba gën nag topp ca xar topp ci béy topp ci waaye nag dañ cay moytu nag mboolem ayib yi gàttu tabaski su fekkee dafa pat maa benn bët la matul tabaski su fekkee dafa wéeri di wéeri di leer naññi ba tey matul tabaski su fekkee eh, day day day wéeri di gu woyof na goo xam ne teewu ko mën a ànd ak jur ga di di di fori ba ayut gàtt bu làggi bay sox-sox bi metti matul tabaski gàtt bu amul dara ci garis matul tabaski eh, ni ko noonu gàtt dafa dafa dafa am junoon ak ak ndof ndof gu biir wala xar mu luum wax ne mënut a meem tabaski eh, ni ko noonu fekkee nopp ba dafa dagg te la ca dagg ëpp sulus ba maanaam suñ xaajee nob bi ñetti xaaj fekkee la ca dagg benn xaaj ba lay tollal ëpp ko baax na waaye su ko ëppee moo xam dagg la moo xam xar la su ko ëppee doytut maanaam bu ñu ko xaree mbaa ñu dagg ko tam ëpp sulus ba matul tabaski ni ko noonu geen su daggee ba tey noonu geen bi su daggee te la ca dagg ëpp sulus ba ba tey tabaski fekkee ne béjji bi dafa béjji bi dafa damm muy nàcc te wéragut matul tabaski waaye su wéree nag ba nàccatul baax na waaye ku nekk nag mooy rendul boppam tabaski su fekkee amu ca amu ca ngànt rendu sa bopp moo gën gannaaw bi imaam rende ba noppi salaa sa mas naa rendi ñaari kuuy yu mag a mag yoo xam ne dafa am ay aqaray ne ne mooy dañu am ay béjjén yu mag waaye itam nekk yoo xam ne dafa ak weex mu rendi benn bi ngir boppam ak njabootam beneen mu ne defal naa ko sama xeet ci képp ko amul tabaski ba ba àdduna tukki ko defee nag ku munta rendi nag mën naa wut keneen ko ko wutu mu rendil ko jigéen mën naa rendil boppam waaye ko rendi njëkk imaam nag day tabaski waaye boo amutum tabaski léegi am amul imaam nag nañu nattale rek fa leen gën a jege bu fekkoon am nañ imam diggante boo xam ne xam jàpp na war naa mën a julli ba war a rendi ñu nattale ci loola rendi imam ja leen gën a jege waaye tabaski ñetti fan la muy bis bu fukkeel bi soo ko jamul bisu fekkeel baag benn soo ko bisu fekkeel baag ñaar bu ci nekk boo ko ci amee mën nga ko rendi waaye bisu njëkk ba gën nag la dal ci yor yor ba ci jant bi so koo xam nag jëkk bi ko raw rek ñaare ba ñett ba lu ci nekk mën na ko tabaski ne deesu jaay dara deesu jaay dara dafa xaraam ba ca der ba sax sañe su ko jaay kala koy fay sax sañu ko caa fay dang nga koy fay xaalis waaye ndawal ga moom ñett lañ ca maye lekk ca sarxe ca ak maye ca suko defee nag loolu bokk na ci li nga xam dees na ko bàyyi ci dees na ko ci bàyyi xel ñaan suñu borom àggale nu ci ak jàmm te nangul nu ko te fekkaloo na ko at yu baree baree bari yu ànd ak jàmm xéewal ak mucc bàkki Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 innahu man badaa bi nasibihi min addunya fa innahu nasibuhu min alaaxirati wala yudriku minha ma yurid wa man badaa bi nasibihi min alaaxirati wasala ilayhi nasibuhu min addunya wa adraka min alaaxirati maa yurid wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda allah huwa xayran wa a'zama ajran wastaxfiru allah inna allaha gafuurun rahiim alhamdulillah maa taxarraka mutaxarrikun wartajja wa labbaa muxrimun wa ajja wa qasada alxaraama min kulli fajj wa uqiimat lillahi fi haadihi alayaami manaasika alxajj allahu akbaru ما نحرت بمنن النحائر وهضمت لله الشعائر وسار إلى الجمرات سائر وطاف بالبيت العتيق زائر أما بعد فيا أيها الناس شمروا وفقكم الله لآجلة لا بد من إمارتها wa qaddimuu laha min aajilatin laa sabiila ilaa dawaami istitaaniha waslukuu fi ma baynakum sabiila al-adli wal-ihsaan wa xaalifu seytaana wal-hawaa fa seytaanu yad'uu ilaa sa'iir wal-hawaa yajurru lil-hawaan wa raaqibu llaaha ar-raqiib alaa man ataa'a min cibaadihi wa asaa wa laazimu ttaqwaa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 allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله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 الله أكبر assalaamu aleykum